installé ngeen ñu en tant que maire de Ziguinchor du bànneex buñ ci yéeg su dee mënu cee ñàkkit li waral loolu mooy lii nga xam ne moom la ñuy yéeg suñu bopp ci sas moo ëpp doole fuuf te ku xam lan mooy pal ndax bari na ñuy xëccoo palu nañ ma fal nañ ma fal waaye pal responsabilité bu rëy rëy la diine koo dem nag wax na ci responsabilité la ci ñi nga jiite kenn ku de ci ñoom bés dina taxaw nga war a layoog moom ci lim la wóolu woon ba dénk la waaye responsabilité la ñun ñi ñëpp ay nit ñu gëm lañu ci suñu kanamu borom moo tax du lu tuuti moo tax nit bu xam luy fal dëgg bu ñu la falee da nga war a tëju di jooy waaye waroo woo sabar yi di tëgg

di nga gis njëriñ bi fii wala di gis njëriñ bi fële tamit